waaw ah, soxna si ñu ngi mm-hmm. lay jaale si ñu di ko ñaan yàlla yàlla xaare eh, ñu koy jaale Sénégal gi yëpp. jaale soxnaam. di ko jaale di ko yaayam ak am di jàmm yëpp. Mm-hmm. lan moo nekkoon bokk dëkk Pikine muy sama doomu ndey di sama xarit. vraiment di sama wëlëre boo xam ne vraiment njaay liñ dem nekk sax dafa bëri xam nga voilà xam weer bu nekk dañ daa gisee ñaari yoon wala benn yoon dañ daa añandoo di toog di waxtaanandoo dafa mën a fréquenté bu baax euh, man Khady maks Max Sapogal xam nga ak ñam maam góor dañ daa nekk tout le temps di añ di yendu di reer def lépp xam nga feet yu bëri macha allah dañuy gisee même ci feeti sax dañuy gisee. xam nga nit ku baax la xam vraiment nit ku may manqué na quoi vraiment. ku may feebaree ba sonn gis ko. gis naa ko gis naa ko ma ciy jaale xarit Raza bu baax vraiment ku sonn ci ci ci feebaram bi xam nga gisee nañu dem naa këram seeti ko man a xadi dem naa aussi ci clinique bi seeti ko mais ñi tamit maa ngi fi fekk soxnaam. mu uuf nag toog ci wetam jàppale ko dem naa ci clinique bi seeti ko waxtaan ak moom mujjee tam bu mujjee déggante téléphone tam aussi maa ngi woo ñuy waxtaan ndeysaan mu tooñ ma ñu mbalagante ma waxtaan ak ma waxtaan ak soxnaam tamit aussi na ko jàmbaar nga parce que jabar soxna fil nii lañ koy soxla mm, boo demee ba sonn nga nekk si wet parce ci loolu dafa bokk ci ci jukko yi jikko yi jigéen jabar ju baax di yor. waaw jabar ñu vraiment maa ngi koy masawu. parce que boo ko xoolee fu mu nekk sax da nga koy xool xam ne kii lekkatul naanatul. te ndeysaan mi ngi toog ci wetu njaay taxawu ko. maa ngi ñaanal jabaram jooju yàlla koy yàlla. voilà yàlla koy yàlla may fan bu gudd ak wér. yàlla na ko yàlla jàppale suñu borom. waaw ko yaay waxtaan kaaf reetaan xam nga waxtaan. ñu ñaar waxtaan. wax ci wàllu diine xamal ko ni nii la yàlla jaam bu mu bëgg lay teg nattu ñu baax ñi rek la yàlla suñu borom teg nattu voilà ñu waxtaan ci lu àdduna lu bëri waxtaan ci wàllu yàlla suñu borom lu bëree bëri bëri xam nga ñuy waxtaan yëpp jabar ji day toog xam nga xarit Teresa day toog dañuy waxtaan daal ñun suñu biir bu baax. mais gisoo benn yoon woon na wala jaaxle woon na wala amul woon yaakaar jugaat fi mu tëdd. maanaam xam nga mën na tëdd feebar am hmm. yi dina jóg wala mu tëdd feebar xelam jeex mu xam naa ne fii ma tëdd duma fi jóg est que amoon na ci moom non non non li waxtaan yëpp ci wàllu dañuy delloo suñu bopp ci yàlla suñu borom hmm. parce que suñu ci bu feebaree yëpp dañuy delloo ci yàlla suñu dama koy delloo si si yàlla suñu borom hmm. moo tax mu nekk xam ne ku gëm yàlla la dañ ci waxtaan ma ne ko jàmbaar di ko jug te ku gëmoon na tamit day jóg la bu ko mën a xam nga war ci dem waxtaan xam bu baax a baax moo ko expliqué ko na ko doxal nii defal nii boo xoolee sax am na benn image bu naan Eumeu Sène mu naan docteur ngoom mm-hmm. naan Eumeu Sène léegi docteur woon na ma parti bii lii parti bii lii xam nga boobu ñu ngi expliqué ñaar yi waxtaan ci lu bëree bëri wax dëgg yàlla ñu dégg ñu wax ci ah man nag wax dëgg yàlla ci ñu ma xam ñi nga xam daal vraiment son nañ ci xarit Raza ci la bokk xëy sax nu ma koy waxee nii na ko bañ a neex mm-hmm. mais tam lu ma fekkee la la lu ma ma xam la daal te toog naa Ndiaye gërëm ko suma kanam waaw Ndiaye gërëm ko ne ko maa ngi lay dénk suma njaboot waaw ne ko carrément su ma demee ba nekk sama njaboot dénk naa la ko loolu moom am na ay témoins yu muy waxtaan ak yoo xam ne man maa ngi toog waaw mais nag wax dëgg yàlla xam nga nit ku baax la nit ko baax la